waxtaan ak moom ci thème boo xam ne ni danañu yitteel waaye dana yitteel askan yëpp waaye sax nag war a yitteel tamit sax bépp julit fa alhamdulilah ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ko ak ubbeef oustaz tey xam naa gannaaw buñ la nuyoo ba dalal la ak jàmm di la wax ahlan wa sahlan marhaba manhaju daawa salafiya qadiman wa hadisan moo ñu boo ñu ko doon waxal mooy lan incha allah barakallahu fikum الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأهلا نيجي سنتي على بباخ دي جلي كنتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي كنيان الجامعة جامع خير ولا بمك ومك أي صحابام كتب يورم بكر بسبنج كنا لو بك نيجي أم بكتب بباخ بباخ بباخ ñëw ci keppaangoo gi daje fekk suñuy mbokk dilit yu nekk ci taxis wala ci nek ci Europe bi ci fa am ñuy mbokk yépp dina yow ñi fi ñi fi dalal ñëpp ñu ngi gis bu Muxtaar di baax di nuyu abou Zainab di nuyu baax di ñaan yàlla mën taw yeneen mbokk yi nekk ci groupe yëpp ma leen di gis ak Ousmane ak ñeneen di ñaan suñu borom mu def fal ñu taw euh, waxtane ko la luñ war a waxtaanee la lu yellu ñu waxtaanee ko la te saa su dañ ko war a waxtaane muy almanhaju salafi muy yoonu mag ñi mag ñooñu mooy yeneen bi ak ay saxaabaam ñooñu dañoo neex a waxtaane waxtaanee leen du doy du lu ñuy jeexal du lu ñuy xaajal waxtaanee leen du soppi euh, ay mbir yu bari rawatina ñu war a waxtaane seen mën muy seen doxalin waxtaan wi dafa ëmb manhaju taawa asalafiya mooy ñetti kàddu am nañ mën hëj am daawa am asalafiya mën hëj mooy lan borom dañuy wax ne mooy ab wa waadix mooy yoon wu leer naññi yoon woo xam ne xàll wu leer naññi xàll wu leer kenn du ko tuddee mën hëj ci làkku arab mën nañ ko tuddee tariq mën nañ ko tuddee sabil mën nañ ko tuddee leneen parce que yooyu mën naa leer mën naa lëndëm mën naa leer mën naa lëndëm sabil mën naa nekk bu baax mën naa nekk bu bon comme borom bi waxee wala tastabina sabilul mujrimin kàccoor yi am nañ seen yoon tariq mën naa nekk tariq bu baax mën naa nekk tariq mën naa leer mën naa waaye mën hëj moom suñ ko waxee rek bu baax mooy mën hëj mën hëj bu ñu ko lu leer borom bi daal wax ni li kulli wa li kulli minkum jaalna shir'atan wa minhaja kenn ku nekk ci yéen xeet yi ak yonent dama defal seen sharia defal leen seen yoon wu leer woo xam ne seen i atte ci la teg kon mën hëj mooy yoon wu leer kon bu ñu waxee mën hëju daawa yoon wu leer ak daawa buñ ko waxee dañu wax ne moy daa di tabliiru sharaaillahi ila nnaasi kaf mooy jottali doomu aadama yi sharia yàlla bi la aju ci wàllu iman nga jottali ko nit ñi ba mu leer la aju ci wàllu ibadat jaamu yàlla yi nga jottali ko nit ñi ba leer la aju ci wàllu axlaaq jikko yi nga jottali ko nit ñi ba leer loolu la ñuy tuddee daawa mooy jottali yàlla bi njàngaleem lislaam li nga xamne moy doomu adam mo xam ñi gëm la mo xam ñi weddi la loolu lañu tuddé ad da'wa bu waxé waxee salafiyya moy tariqu al jil al awwal min an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahabatihi wa man jaa baadahum ila yawm al din moy yoonu mas gu jitu ci diine xam bu dé ci at ñoo mak bu dé ci xam-xam ñoo ci mak comme ñoy mak ñi parce que ñoo mak ci at mak ci xam ku ñew seen ginnaw ñoo la mak ci at ku ñëw seen ginnaw ñoo la mak ci xam-xam kon moy yoonu mak ña mag ñi nga xam ne ñoo mag ci lislaam seenug lislaam mooy gi jiitu seen xam-xam mooy gi jiitu waaye ci at ku ñëw seen ginnaaw ñoo la mag ñooñu ñooy asalaf ñooñu ka ca jiitu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gi ay saxaabaam euh, ginnaaw gi ñi ci ñëw ci ginnaaw te jool borom xam-xam tënku ko ci alquran alaasa fadla mooy ñetti siècle yi gën comme ko alimaamul laalaka it waxee ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne maas gi gën mooy sama maas tege ci ñi ci tege tege ci ñi ci tege kon maasam génération am ñi ca tege ñi ca tege ñetti génération yooyu mooy gën ci xeetu lislaam lan lañ gën ñoo gën fil aqida ten pas-pas ci lan lañ gën ñoo gën fil ibadat ñoo gën ci jaamu yàlla ci lan lañ gën ñoo gën fil axlaaqi wa suluk ñoo gën ci jikko ak ci comportement ci lan lañ gën fil ilmi ñoo gën ci xam-xam seen pas-pas moo gën seen jaamu yàlla moo gën seen jikko moo gën seen comportement moo gën waaye seen xamxam mooy xam-xam bi bu bëggee xam bu set ci diine foog nga dellu seen xamxam xam seeti sooy war ngëm gu baax foog nga seeti luñ gëmoon ci mbir mi ndax lii gëmoon nañ ko wala gëmoon sooy war ay jikko da ngay xool ndax li jikkoo nañ ko wala jikkowuñ ko lan moo tax mooy ñoom la yàlla gërëm ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam gërëm keneen ku dul ñoom benn kuréel wala benn mbooloo wala as nit ñoo fi taxaw gërëm la yow mais yàlla moom ñi mu gërëm mooy saxaaba yi la gërëm ak ñi nga xam ni ñoo ñëw maas googu la gërëm kon mooy kiilu saxaaba noonu la yàlla wax ne radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla wax ko ci keneen fe keneen na ku dul ñoom daa am ñu taxaw taggal wala am ñu taxaw gërëm la mais ñii yàllaa leen taggal boppam moo leen gërëmal boppam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen taggal boppam moo leen gërëmal boppam moo tax kon jàngat seenu yoon ci woote jëmale ci yàlla loolu du tuuti seen méthode seen méthodologie loolu dafay nekk loo xam ne lu rëy xeet wi nag saa bu ñuy gën a jege ñooñu gën a nekk ci ak mbaax ak njub saa bu ñu leen gënee sori gën a nekk ci cànkute gën a nekk ci li nga xam ni moom mooy réer lépp loo gis daa am delluwaay mbokk yi lépp loo gis daa am fu muy dellu xeetu lislaam seen delluwaay mooy mag magu lislaam mooy yeneen ti bekk ay saxaaba ku leen fi romb ku leen fi romb loo jàpp dootul saf ku leen xeeb yaa xeebu ku téye leneen réel ko loolu daa tuuti parce que lu taxaw seen kanam tuuti bu dee loo indi seen kanam ci ngëm wala ci jaamu yàlla wala ci xam-xam day tuuti par rapport ak yonent bi ay saxaabaam ñooñu duñu moroom duñu maas duñu màppandoo kon duñu ñuy gam-gamle ak ñenn wala ñu leen di tollale lenn wala ñu leen ci leneen leneen la ñuy jël kay di ko natt ci ñoom mais ñoom kenn du leen natt ci dara lu ñëw dañ lay natt ci yonent bi ak ay saxaabaam mais yonent bi ak i saxaabaam kenn du leen jël di leen ci leneen loolu boo ko defee rek yaa ngi leen di doyadal te yonent bi kenn du ko ñuy doyadal ay saxaabaam du ko ñuy doyadal yàlla doyalu leen yàlla doy doy doyloo doyloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla subhaanahu wa nekk nekkul koo xam ne aussi dafa tuutal ay saxaaba benn da leen a màggal lool ñu place bu ci xel ci lislaam doon ñu màgg seen lépp doon référence seeni jikku seen xam-xam seen jaamu yàlla seen boo xoolee kon ak daawal islam woote lislaam lan moo ko caractériser lan moo ko tënk ñun li ñuy kër kër yëpp naan dañuy daawa waaw ñun lan moo tax ñuy daawa suñ daawa bi ci lan la jëm lan moo tax ñuy daawa loolu boo ko xamee ci leeree ci yow dengan nga moy ne mooy haju eh, ad salafiya qadiman wa hadith ci lan mo tax ñuy daaw daaw bi yepp ci ñetti mbir bi ci njëkk moy al imanu as-sadiq moy ngëm yalla gu deggu ngëm yalla goo xamne gu deggul wal imanu sadiq wa sahih moy ngëm yalla gu deggu te wér ngëm yalla gu deggu ba pare wér lolu moy li tax jox ad-da'wa al islamiyya lolu moy moo tënk ak daawa salafiyya mu fexe ba nit ñi gëm yàlla gëm yàlla gu wér gu wér gu authentique gu xam ne amul njaxas ñaareel ba mooy mu doon ngëm gu wér ngëm gi day dëggu te wér ngëm gu dëggu mooy ngëm gi yàlla digle lépp looy gëm ci yàlla te digle wu ko dëggu wér gi mooy dëppoo naag njàngale alquran ak sunna su boobaa nekk na imaanul saxiix ñaareel bi mooy al amalu saalih mooy pour ñun dañuy woon nit ñi seen ñi defar ci seen pas-pas defar seen ngëm ba mu doon ngëm gu baax dëppoog ni ko yàlla bëgg duñ jël ngëm yàlla lu dul ci yàlla duñ jël ngëm yàlla lu dul yàlla santaane nañ ko war a gëm ak yonantam fa lañ koy jëlee bu loolu jàllee ngëm nga day dëppoog njàngale yàlla ak yonent bi mu doon ngëm gu wér ñaareel bi mooy al amalu saalih mooy fexe ba nit li ñuy jëf ci ay jëf mu doon jëf yu baax seeni julli seeni woor seeni azaka seeni aj màkka seeni saraxe seeni digle lu baax seeni tere lu bon seeni rendi seeni nisër seeni wàkkirlu mu doon lu wér na wér parce que jëf ji ngay jëf di ci sonn di ci kër kër yi ba pare tegewul ci lu wér wérul suñu borom du ko nangu dalaaxa tayibun wala yaqbalu illa tayib mu waxaat ne ilayhi yasadu alkalimu tayib wal amalu saalih al amalu saalih la wax lan moo ci xew mu ne yarfauhu kàddu yu teey te baax yi day yéeg fa yàlla wala amalu saalihu jëf yu yarfa'uhu moom yàlla da koy yëkkati waaw loo ci déggee mooy alkalaam xayru tayib mooy kàddu gu baaxul du ko yëkkati du dem fa moom الصعود يك العمل غير الصالح لا يرفعه لولو موي المفهوم المنطوق موي لي مو واخ واي لي متي المفهوم في اصول المفهوم لي ني كومبراندر موي بودي كادو غو باخ داي يك jëf ju baax suñu borom da ko yëkkati kon kàddu gu bon du yëg jëf ju bon yàlla du yëkkati kon kon li kër kër mooy wo nit ki ci al al imaanu saadiq as-saxiix gëm yàlla gu wér dëggu ñaar mooy amalu saalih mooy jëf ju baax jëf ju jëf ju baax ñetteel bi nga xam ni lu mat a bàyyi xel la mooy al ilmu naafi mooy xam-xam bu am njëriñ fexe ba nit ki gëm yàlla gëm yàlla gu wér te fexe ba nit ki nek ko xamni da fay am li nga xamni moy jëf ju bax ñettel bi moy nit ki nek ko xamni da fay nek ci li nga xamni moy al ilmu nafi moy xam-xam moy ilmu al kitab wa sunna ñu xam xam al qur'an du jëfëndiko benen budul ilmu al kitab wa sunna xam xam al qur'an ak sunna buñ koy wax ci diine moy ilmu nafi moy xam-xam bi am jëriñ moy xam-xam bi am solo benen xam-xam ci diine bàyyeeku wol ci alxuraan bàyyeeku ci sunna da lay sori yalla sori la yonenté sori la sa diine sori la sa sharia sori la li nga xamne mom moy mooy njub sori la mbax sori la yiw ila akhir loolu motax al ilm an nafi' mooy xam-xam bu am solo yonenté bi alayhi salatu wassalam nak li moko ko ci li mo lii moy wote moy jangale nit ñi bañ gëm yalla gëm yalla bu wër xam-xam bu am njëriñ ak jëf yu baax moo tax ñun li da daawa salafiya lii moo ko caractérisé ci lii moo ko tax a jóg mooy yittewoo ngëm yàlla nit ñi seenu jaamu yàlla mu wér yittewoo ñu am xam-xam bu am njëriñ muy xam-xam bu alquran ak sunna ilmul kitaabi wa sunna tënkoo ci leneen loolu bu ñu ko xamee mbokk yi dañuy xam daawa salafiya mën a jëm bu fekkee loolu la léegi li ñu tudd nii ñu tudd nii lan moo koy lan moo ko coiffé lan moo koy gunge ci lan lay wéeru ci li muy wéeru mooy li nga xam ne ci la almanhaju salafi wéeru mooy alkitaabu wa sunna ala fahmi salafi mooy topp alquran topp na waaye bañ koo déggee beneen déggin ñu teeg ñi nga xam ne ñooñu ëppoon ngëm yàlla ëpp ñu jëf yu baax gën ñoo set xam-xam lu dul ci ñoom la ñuy dellu pour nekk ñoo xam ni fa jëlee li nga xam ne moom mooy moom mooy woote bi fa la ñuy jëlee li nga xam ne mooy comportement yi fa la ñuy jëlee li nga xam ni mooy jëflante bi fa la ñuy jëlee li nga xam ni moom mooy jaamu yàlla loolu ci gàttal mbokk yi moo aju ci li nga xam ne mooy euh, addaawa al islamiya wala addaawa salafiya bu a ci wàllu woote bi alayhi salaatu salaam li fi nekkoon mooy yonent bi lam daan def mooy xutba lan la daan def mooy jàngale lan la daan def mooy tontu ay laaj loolu ci méthode bi yonent bi alayhi salaam doon tasaare njàngaleem ci la bokk mooy jàngale xutba ak tontu ay laaj su fekkee période màkka bi bi mu nekkee màkka moom yonent bi alayhi salaatu salaam booba daawul xutba waaye lu doon def mooy jàngale lu doon def li ñu tuddee mawida mooy waaraate léegoo-léeg mu ñëw ci kaaba gi di ko fi def léegoo-léeg mu génn ci mbedd màkka yi léegoo léeg mu xaw a tukki comme mu demoon dem ba Taif tukki ko woote bañ boole ko xale ya ak dofee ñu koy sànni ay ba Jibril dikkal ko ak malakul jibaal loolu bokk na ci méthode bi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu salaam daanaka jëfandikoo loolu mooy ci marxala ak daawa ak bu mu demee Médine leneen yokku ci mooy lan mooy jàngale na xutba na def na ay bayaan waxtaan na. nekk na koo xam ni dana tontu ay laaj kon xutba bi moo ci dooleeku si bi mu ñëwee Medine yonente bi alayhi salatu wasalam am na jàkka saxaaba yi wër ko ñu farataal julli ajjuma yonente bi alayhi salatu wasalam di yeeg min baram julli ajjuma di waar saxaaba yi tey am na yu bëri tey ñu koy nettali xadis yooyu buñ koy nettali ci ci téere yi nga xam dañ koy dagg demee ni arbauna nawawiya wala riyadu salihin wala bulugul maram wala umdatul ahkam wala muxtaarul ahadith واللؤلؤ والمرجان fi ma taf fi ma tafaq alayhi cheikhan téere yooyu généralement duñ indi lépp dañuy dagg mais boo dellu woon cosaanu xadis bi ca téere xadis yam nekk muy cosaanu téere yi ndayute umahaatul kutub muy buxaari wala muslim wala abu daawud wala tirmisi wala nasaa'i wala ibni maaja wala musnad ahmad wala muwatta malik wala sunan addaarimi wala bu bayhaqi lan nga fay fekk wala muntaqa ibnul jaarut téere nga xam ñooy cosaan ci ilmul xadis lan nga fay fekk mooy da ngay fekk ni am na ci xadis yu yoo xam ne boo ko toppee yonent bi alayhi salatu salaam ni ñu ko waxee ci kaw minbar comme xadis innamal amalu binniyaat loolu ñu bëri xamuñu ko waaye yonent bi alayhi salaam ci minbar la ko waxee xadis innamal amalu binniyaat am na yeneen xadis am na yeneen xadis am na yeneen xadis kon loolu lu ci dolleeku la waaye mu bokk ci euh, méthode boobu mooy génn yónni ay nit ñu dem jottali yónni ay nit ñu dem jottali comme bi nga xamee ni o min koye ɗoro yoni mo mbiɗon tiɓe alayhi salatu salam lettre yim bindon jëmale ko ci buuri lettre yim bindon jëmale ko ci buuri kenn ku nekk mu lay woo ci nga ñëw ci l'islam lettre yooyu am ay aaya alquran yoo xam ne moom la ko defoon bokk na ca qul ya ahlal kitabi taalaw ila kalimatin سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله genre ayoyu mu defoon ko ci li nga xam ni moom mooy Euh, ay ay ay lettre bind ko jox ko ay nit ñu yóbbul ko buuru perse yi beneen bi ñu yóbbul ko buuru romain yi beneen bi ñu yóbbul ko buuru éthiopien yi kenn ku nekk yonente bi alayhi salatu wasallam yónnee la benn lettre boo xam ne jubluwaay bi mooy woole nga ñëw fekk ci ci li nga xam ne moom mooy lislaam mbokk yi loolu boo ko li muy tekk rek mooy li ñu waxoon sànq al ilmu naafi loolu mooy al ilmu naafi mooy xam-xam bu am solo xam-xam bu am njëriñ kon mën manhaju daawa salafiya ci jàngale ko ci wàllu daawa manhaju salaf jàllale seen manhaj ci wàllu daawa dañ kaa teg ci ak jàngale at taalim wa tadris mooy jàngal nit lan leen di jàngal ilmul kitaabi wa sunna jàngaleen xam-xamu alquran jàngaleen xam-xamu sunna wallahi xool adduna bi jeex nga xool ñiy woote woo topp yoonu ad daawa salafiya ndax am na lu ñuy jàngale lu dul téere yàlla bi ndax am na lu ñuy jàngale du dul xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo leen bañ bañ bañ loo leen soxore loo leen iñaane lu ñu la déranger loo leen mere mere ah mën nga leen a nangul ne jàngale wuñ lu dul alquran jàngale wuñ lu dul xadis ku gis leen lu dul loolu na ko wax jàngale wuñ lu dul alquran ci la ñuy xëy ci la ñuy gont jàngale wuñ lu dul xadis ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ku gis leneen lu dul lii ñu jàngal leneen lu dul Al alquran tafsir alquran firi alquran leeral Al alquran tafsir hadis firi hadis leeray atay hadis wax dëgg yàlla loolu nga mën a mënoo ko supporter loolu moo la déranger moo tàng sa xol moo la métti moo tax ngay ñeññi moo tax ngay ngay nga xat moo sa xol di tàng waaw wax dëgg yàlla nag léegi lan nga bëgg dañuy wax lan nga bëgg lan nga bëgg ni ñuy jàngale ndax da ngaa bëgg ni ñuy lan ndax da ngaa bëgg ni ñuy jàngale ay téere téere yoo xam ni euh, euh, Einstein la wala Karl Marx la wala Victor Hugo la wala téere yoo xam ne ay nit yi ñëw fii barki déem boo njaay ñoom ñoo ko taali génnee ko bind ci seen i bind mu nekk seen i xalaat bopp ñi ne da am lu leen feeñu ñi ne dafa am lu leen sentir luñ sentir ñi wax ne dafa am luñ gént mu wax leen nangam ñi yow bind téere yooyu waaw ndax téere yooyu la ñuy jël di ko jàngale privilégié ko ci kaw alquran privilégié ko ci kaw sunna loolu mooy laaj ndax loolu la ñuy jël daal di ciy sonn di ko jàng léegi am mbooloo mu jóg jullit ñi war a xam téere yàlla parce que xam ko farata war a xam sunna yonent bi alayhi salaam parce que xam ko faratal téere yàlla bi ñàkk koo xam cànkute la te jullit bi ak jaamu yàlla mënta wér lu dul ni da koo tibbee ci alquran pas-pasam mënta wér da koo tibbee ci alquran xam-xamu diine mënu ko am lu dafa dellu ci alquran jaamu yàlla mënta wér lu daf ko dellu ci sunna xam-xamam mënta wér lu dul da koo tibbee ci sunna pas-pasam mënta wér lu da koo tibbee ci sunna ñaar yi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu salaam moom la waxoon jox nañ ma leen te duñ tàqalikoo ba keroog nit ñi dekki ba nekk ca sama dex laa yaftari xaar yi neena ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu dañ maa jox lu melni al alquran andak ak alquran du takaliko ak mom te lolu moy suma sun ñom ñaar dañu takaliko kon lolu wax deug yalla bu fekkon ni dañu nekk ci jamono jo xamne jamono ju ju ju normal la nit ñi and nañu ko seen sagu nite nañ dañu jëfandikoo seen xel dinañ xalaat mbaaxang fi njubam fi bëgg lu ak fi ragal ak fi am loy rus ak loy jom mi ngi fi kuy woote alquran ak sunna dañ ko war a tàccu bu fekkoon ni suñu diine may nañu tàccu dañ ko war a tàccu dañ ko war a encouragé dañ ko war a ñaanal dañ ko war a décorer dañ ko war a sant dañ ko war a yëkkati waaye jamono juutul waaye nit ñi seeni xalaat yi mooy juutu wax ni ji nekk xalaatu nit ñi ci juutu àgg na ci dafa am ñoo xam ne dañoo ay nekk ay expert aay ci bonal bonal waaye aay ci baaxal lu bon jamono yi ñuy dund dañoo dem a dem ba ay nit ñoo fi toog dafa mel ni ñoom dañu leen takkal garaatu ne leen yéen loo leen bonal bon na dañuy jékki-jékki ñëpp xam ne lii baax na amul benn problème mais ñoom ñooy wax ne bon na jaboliser loola jaboliser ña koy def jaboliser ña ca nekk su ko defee léegi comme ñoom ñoo ko wax loola kenn du ko ñemee tuddati ku ci bokk ba moytu da ngay làqatu wala ngay daw euh, may ay nit fit ay nit ñuy jaboliser léegi ci même moment bi ñu mën a jël loo xam ne lu bon la ba ñëpp xam ne lii dafa bon te dafa mës a bon mësul aar ñu jox ko critère na lu baax ba kenn du ñemee attaqué ci loolu ne loolu lu bon ba boo ko defee yow da am jafe-jafe sax ba moytuwul dinañ la attaqué dinañ la song dinañ la saaga dinañ la xas dañ la maltraité ba moytuwul convocation mën a ci am tëj mën na ci am dem kaso mën na ci am mooy li ñuy dund damay wax ne jamono ji nekk ñëpp xam nañ ni jigéen bu sol jip muuruwul di dox ci mbedd ñëpp xam nañ ne baaxul ñëpp xam nañ ne lu bon la baaxul mais dem nañ ba jamono mu mel ni dafa baax tey suñu amoon koo xam ni da ngay gis ministre boo xam ni day ñëw jëm di yi wàcc ci otoom yor saagam cartable am sol jippam bu gàtt dugg ci bureau bi te du déranger kenn pourtant dafa waroon déranger de mais du déranger kenn léegi imaginel boo gisoon tey benn ministre wala benn directeur société xëy di liggéey daa di sol chemise am di sol kilot yor saagam dugg otoom dawal ba àgg wàcc ak kilotam di dugg ci biro bi lan ngay dégg moo ba di nga dégg nit ñi ne waaw xanaa directeur dafa dof di nga dégg ko wax directeur bi est-ce que ànd naa ak sagoom lan la mooy kilifa gu góor gu sol kilot la xam loolu jaaduwul mais jigéen ju majeur du sol zip moo gën a garaaw kilifa gu sol kilot mais dem nañ ba gëmloo leen lii baax na waaye bii baaxul maanaam góor moom mën naa sol kilot mais euh, euh, euh, am na problème waaye jigéen jigéen mënta nekk koo xam ni dafay sol li nga xam ni sol zippam du déranger kenn mais nag góor bu solee kilot nekk kilifa war naa mën a déranger alors que jigéen bu sol zipp du déranger kenn loolu xam nga kenn xamul noo koy tuddee loolu kenn xamul noo koy tuddee loolu mooy xalbul mawazin mooy ñu dem ba nattukaay yi ñu doon nattee xam li jaadoog li jaaduwul ñu dem ba dem ba nattukaay yi fayir ñu wëlbati ko ba nattukaay yi léegi duñ nat nat bu bax lu bon lañuy nat lu bonon dañ koy baxal lu baaxoon dañ koy bon lu lay nante bi alayhi salaatu salaam waxoon ni di ngeen dem ba tollu ci li nga tuddé sanawaatul xaddaat ay at yoo xam at yi naxaatel at yi waraatel su ngeen fa agge ci at yooyu di ngeen gis lu yéme lan moy xaw mu ne yusaddaqu fiha alkaasib ay dem ba ku doon wax deug ku doon wax ko xam ne kat la won dañ koy deug wa yukazzabu fiha sadiq euh ki nga xam ne waxkatu deug la won ñu def ko kat mu ne wayu ammanu fiha alxaain itam boo koo xam ne traître la ñu jàppee ko koo xam ne ku wóor la wayu xawwanu fiha al amin itam boo koo xam ne ku wóor la ñu ne traître la mu ne wa yatakallamu fihi ruway bida dañuy dem ba nit koo xam ne wax dëgg yàlla warutoon wax mais situation bii xew moo tax muy wax de mu ne ku mel noonu di wax bi mu waxee loolu saxaaba yi ne ko wa man ruway bida yaa rasulallah waa ruway bida mi ngay wax mooy kan mu ne ar rajulu tafih nit ku tekkiwul dara yatakallamu fi amril amma di wax ci nit ki ci turu xeet wi ci turu askan wi di wax ci turu nit ñi di wax ci turu diine ji di wax ci turu kilifa yi te warutoon nekk yonent bi alayhi salaatu salaam mu ni kon kooku mooy rajulu taafi moom koo xam ne tekkiwul dara rajul attaafi boo demee boo xoolee dëgg-dëgg day mel ni wax dëgg yàlla ci jamono jooju lañ nekk loo xam ni lu yéeme la kon daawa salafi lool moo ko tax a jóg dëgg-dëgg الإيمان الصادق الصحيح العمل الصالح waaye naka noonu al ilmu nafia dëgg yàlla loolu ku mel noonu kenn waruloon na wala diaboliser wala ñu lay xeex wala ñu daw wala ñu ragal kon baatu salaf yow nga xam wax dëgg yàlla dafa tiital aduna te wax dëgg yàlla waa aduna dañ cee waroon a dal waruñu woon tiit parce que li mu tax a jóg mooy da leen a bëgg orienté ci ngëm yàlla bu baax ci xam-xam bu am njëriñ ak ci ay jëf yu baax kese leneen taxu koo jóg orienté leen ci ñett yooyu rek ko tax bi al imaanu saadiqu saxiix al amalu saalix ak al ilmu naam amul beneen programme daawa sale loolu mooy programme fexe ba nit ñi seenu ngëm baax seeni jaamu yàlla wér waaye seen xam-xam nekk xam-xam bu am njëriñ muy xam-xam alxuraan ak sunna ci bañ a tibbee feneen xam-xamu diine du ci ay gént du ci ay xalaat du ci ay kashfu du ci ay zawku du ci ay xasaasaat du ci ay manaamaat du ci ay ixsaasaat déedéet wala mu nekk ci ay wujdaan wala yu demee noonu waaye day nekk loo xam ni xam alquran la ak sunna yàlla nee na yonent bi alayhi salatu salaam kon daawa salafiya lii la mës a nekk soo ko jëlee jamono yàgg waaye nag day dox jamono day dox te daawa salafiya ni mu bindoo mooy dafa jiitu jamono waaye jamono du ko jiitu parce que lu bàyyee ko ci yàlla ak yonent bi wax dëgg yàlla kooku jamono mënu ko dépassé parce que yàlla moo indi jamono te moo indi diine ji kon diine ji foog mu ànd ak te diine jooju maanaam tënku ci tënku gu wér mooy tënku ci ad daawa a kon ad daawa salafiya mooy ad daawa woote lislaam bi wér ku ci tënku rek yaa ngi ci ab daawa salafi waaye loolu dafa mel ni nit dañ koo xaw a dañ koo xaw a ñàkk a xam dañ koo xaw a ñàkk a jàpp eh, te googu topp leen ci wàllu daawa dafa nekk loo xam ne dafa dañ ci eh, maanaam nit ki amu ci ixtiyaar yi du choix mais waru gar la obligation la aaya bi yàlla di wax ne wa man shaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu al huda wa yattabi ghayra sabili al muminin gis nga dane wa yattabi gayra sabilil muminin mu topp beneen yoon dul yoonu saxaaba yi léegi yoonu saxaaba yi kon seen yoon ci daawa da koy topp seen yoon ci aqida da koy topp seen yoon ci sàkku xam-xam da koy topp seen yoon ci ibadat jaamu yàlla da nga koy topp seen yoon ci axlaaq wa suluk da nga koy topp jël dara bàyyi leneen lépp ngay jël lépp ngay jël ngay jël comme ni ko borom bi waxee udxulu fi silmi kaafa dugg leen ci lislaam ba jeex ci tàkk kon da ci ciy jeex tàkk borom xam ñu ne bu fekkoon ne lislaam ab cercle la da ngay dugg ci biir ñu yaa ci biir wala nga génn ñu xam ne bokkoo waaye mënoo ngarale dugal benn tànk ci biir benn tànk ci biti duggoo génn loolu mënul nekk lu moo tax euh, booy wax yoonu salaf yi da ngay jël seen yoon yëpp parce que yàlla dafa nekk toppoo seen yoon seen yoon da ko généraliste seen yoon seen yoon bi nga xam ne mooy tariqumul am seen yoon ci lépp luñ daan dundee seen comportement ak seen jaamu yàlla ak seen pas-pas doo ca bàyyi dara ko lépp mbir loolu boo ko deful suba da ngay nekk koo xam ni wax dëgg yàlla di nga am yedd nga kon daaw bi loolu la doxe ci ay jamono mu dox a dox yonent bi alayhi salaam jóge fi saxaaba yi des fi ñi nga xam ne moo leen yar yaral leen boppam bàyyi leen fi ci njiital Abu Bakar ginnaaw gi Omar ginnaaw gi Ousmane ginnaaw gi Ali ginnaaw gi Muawiya ginnaaw gi Yazid banu Umayya toog mu continuer Abdulmalik ibn Marwan mu continuer di continuer ba ci Muhammad ibn Marwan ni mu fi jógee al xilaafa al abbasiya ñëw ñu dema dem ba asul Euh, diggante bi lu bari jaar fi waaye daanaka du xaj dinañ tënk lu bari bëri euh, euh, ngir xëy na waxtu waa ngi sori waaye dinañ tënk lu bari loo xam ne ay xutut aride lay nekk ay ligne grande ligne lay nekk duñ ko mën a détaillé lool niñ ko bëggee yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mu fi bàyyi mu xaw a réer wooteem boobu dina ba jamono bi daa bëri bi daa tasaaroo bokkaale yu bëri ay nit di tabax ay bàmmeel bàmmeelu ay nit ñu baax nee nañ mo xam ci makka la mo xam ci medine la mo xam ci réewu arab yëpp la mo xam ci réewu l'islam yëpp loola daal di réer complètement ñi dama dem ba lañu waroon a yaakaar ci yàlla yaakaar ko ci ay nit jàpp na ñoo leen di indil njëriñ wala ñoo leen di dàqal lor yemuñu fa ñi dama dem ba yonente bi alayhi salatu salaam place bi ñu ko waroon a teg jël nañ ay nit ñoo xam ne ci julit ñi léegi nit ñooña bo leen tuddee am na ci ay kuréel yoo xam ne ñooñu ñoo gën a ci ñoom ka yonente bi alayhi salatu wasalaam bal ñu dem a dem ba kurel bu nekk ci l'islam ka nga xamne ne ay mom ngay askane sa bop koko nga gëna fonk moom nga gëna top topp nga gëna yaakar yaakaar nga gëna wolu wóolu nga gëna magal màggal nga gëna deglu déglu ko njàngale yonent bi alayhi salaam ah nak nag léegi dafay aajowoo nag be salaat du kere de lu fi nekkon la waye be salat ko pour doomu adama yi xam ci la sunu borom euh, daa di taxawal ay góor yalla ci siècle bu nekk mu génne ay góor yalla yo xam ñew nañ be salat nit ñi njàngalem yonent bi alayhi salatu wassalam ak ay sahabam ci siècle bu nek suñu borom subhanahu wa taala loolu la def ci sahaba yi demee di jeex ñu génnee fi ay kilifa génnee fi ay ponkal yo xamni ci jamono yi sahaba yi fekk sahaba yaangi dem muy ay nit di génne ay ponkal di génne ay borom xam-xam sa su nek sa su nek ba ak ci njitu ñenti mazhabi muy Abu Hanifa di Ahmad ibn Hanbal di Shafii di imam Malik ginnaaw gi mu indi ay ponkali boroom xam-xam yoo xam ne ñoo nañ seen ginnaaw ñoo continuer relève bi di leeral yoonu salafi woote woo topp alquran topp sunna ala fahmi salafi loolu ñoom ñëpp ñu nekk ci ñi bind ay téere ñi wax ci ñi ci def ñi ci def ay ay jàngale mbir mi di gën a tasaar waa bidaa di gën a doole léegoo leeg ñu am doole léegoo leeg waa salafiya am doole léegoo leeg ñi tënku ci bidaa am doole léegoo-léeg ñi tënku ci njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam addaawa salafiya am doole noonu lay tegoo loolu nag doon dellu léegoo-léeg ci buur bi ñëw nekk buur bu baax jàppale woo da addaawa salafiya léegoo-léeg mu nekk buur dëng bu kàccoor jàppale li nga xam ne mooy kuréel sànq léegoo-léeg al mu'tazila lay doon léegoo-léeg al xawaarij lay doon léegoo-léeg al shia rafida lay doon léegoo-léeg al batiniya lay doon léeg-léeg léegoo-léeg ñeneen ak ñeneen ila axiri kon loolu noonu la mu nekk loo xam ne bëri la siraa la baynal xaqi wal baatil diggante dëgg a neen saa su nekk rek ñoom ñaar ñu ngi bëri léegoo-leeg am ko am doole léegoo-leeg kenn ki faible léegoo-leeg keneen ki am loolu loolu moo mës am di dox dem ba jamono ci asul xadis mu ci monde contemporain bi am yu bëri yi xew mooy daa ñu gis ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam njàngaleem xaw na rab alquran wax dëgg yàlla niñ koy jàngale ak niñ koy tasaare des na doomu aadama yi génne nañ fi ay tafsir yoo xam ne tafsir baatini la tafsir baatini si baat yi nga xam ne amul delluwaay ci ki nga xam ni moom moo woote woo baat yi ak ñitam nangul ko moom mooy xool wax lu ko neex dama dem ba ñu génne xaqiqa ak sharia sharia mooy njàngalem yonent bi waaye xaqiqa mooy li ko féete kaw comme ni nga xamee ne xudar dafa yoroon xam-xam bu féete kaw Muusa noonu la ay nit mën am xam-xam bu féete kaw yonent bi alayhi salaatu salaam doon ci aw xeetam ay nit commencé yaxal loolu commencé ko saxal ñu ne déet doomu aadama yi di sukkandiku ci seeni jaamu yàlla yu bëri ci ay xadis yi sos ci ay ñaan yoo xam ne boo ko defee am nangam ay julli yoo xam ne boo ko defee am nangam ay koor yoo xam ne boo ko defee am nangam ay wird yoo xam ne boo ko defee am nangam yooyu commencé tasaaroo commencé bëri borom xam-xam bi jóg commencé nag seggaat li nga xam ni mooy lislaam ci boppam segg pas-pas yi segg jaamu yàlla segg xam-xam bi ba lu ci bokkul ñu génnee ko ci loolu nag mayaat jëmm mayaat doole li nga xam ne mooy ad daawa asalafiya bu baax a baax ci jamono yu mujj yi ba bu alquran njang mu wër té set ñepp dem ci ci ñom suñu waxé hadith yonent bi alayhi salatu wassalam ñepp dem ci ñom suñu waxé maîtriser xam xam alquran ak sunna xel yëpp dem ci ñom suñu waxé fonk sahaba yi magal leen xel yëpp dem ci ñoom xamé wu leen parlo ci nit wala par parlo ci kurel wala par parlo ci dëkk wala par parlo ci menen jangale mu alquran ak sunna wala parlo ci beneen yoon wu dul yoonu salafu saalih ku leen giñ dañuy par parlo ci alquran da deug ku leen giñ dañuy par parlo ci sunna da deug ku leen giñ dañuy par parlo ci yoonu salafi loolu deug la amu ci sakka ku leen giñ dañuy par parlo ci pas-pas bu wér deug la waye xolal yeneen kuréel yi nga xol ñeneen ñi ko fi jël day parlo ci nit tur nit day parlo ci aw xet wala askan wala ab gox wala ab dëkk lego lesa ab village waaye ñoom kenn xamewu leen loolu bokk wallahi kenn xamewu leen loolu loolu moo tax ñoom kenn du leen askanale lu dul as-salafiyya mooy mag ñu baax ñi lañ leen di askan askanale kenn koo fi jël boo ko jëlee boo ko laajee lan la mu ne man damaa topp yoonu Abdul Qaadir Jeylaani kon Jeylaani la kon man Qaadiri la keneen ne la man dama topp yoonu Abul Abbas Ahmad Tijaani kon man Tijaani la keneen ne la man dama topp yoonu yi nga xam ni mooy ashazili ولا يونو الرفاعي كون شازيلا ولا رفاعي ولا سفمانيلا ولا لنن لا ولا لنن تاريخ يمك ييغا خامني ньо سوسو سي ادونا سي الاسلام ولا يينن يوني كو جيل دافاي اسكنن ميم تي بير يوني بو جيلي كي نلا يون مان غلام احمد لا توك مان احمدينا مي سلفي مون نان واخني مان كوم ني نكوي تومالي مان يون ابن تيميه توك تيميه ولا يون محمد ابن عبد الوهاب لا كون وهابي ولا مان يونو كات الامام ابن مندلا kon askane leen ma ibnu man wala yoonu ibnu xoseyma wala topp askane leen ma yoonam wala yoonu ibnu xibbaan laa topp askane leen ma yoonam wala yoonu buxaari laa topp déet waaye ñoom toppuñu buxaari toppuñu ibnu taymiya toppuñu muhammad ibnu abdul wahab toppuñu tirmisi toppuñu nasaa'i toppuñu ibnu manda toppuñu ibnu xibbaan toppuñu ibnu xoseyma yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee doomu aadama moom kenn lañ jël te ko seen kanam di ko topp lu mu wax ñu jël duñ ci sikki sàkka dara kenn mu am loolu ci ñoom moo yeneen bi kon kay ku leen di askanale boo leen waxoon Muhammad yu duñ ko bañ de parce que yonent yoon yoonu yonent yàlla Muhammad moom moom lañ topp amuñu beneen yoon bu dul yoonu yonent mooy yoonu mag ñi waaye ñenn ñi iñaane ñañ laa wax salafiya bal yemuñu fo dañoo jël baat bi daal di koy coupé takkal ko benn étiquette boo xam ni dañ comme diaboliser mooy bu ñu waxee salafi mooy taalakatu bomb raykatu nit yéeféerloo pour jàpp loolu bu ñu ko defee dinañ baare yoon waaye def nañ ko def waaye taxul yoon waa ngi dox de def ko jàpp ne ñi ci nekkoon dañuy làqatu wala ñu daw génn yoon wala bàyyi ko abadan tey la wàllu gën a aay tey la yoon gën a dox tey la ko nit ñi gën a wuusi tey la gën a dugg ci yeneen yoon yi tey la gën a dugg ci yeneen kër yi ruq yëpp yoon waa ngi fa ruq boo jël kër goo jël koñ boo jël mi ngi fa bàyyiwul fenn te wallahi dara du ko arrêté parce que dafa tënku ci ñet yi mu tuddu moy xamal nit ñi pass pass bu bu deug bu sincère bu wër xamal leen xam-xam bu wër bu jóge ci alcorane ak sunna xamal leen jëf ju rafet te baax tege ci alcorane ak sunna waaw loolu nag loolu dafa neexul téye mbok lolu dafa neexul téye dafa neexul garder dafa neexul xex parce que boy loy li ngay xex mooy alcorane ak sunna alcorane ak sunna mëno ko xex mëno ko xex mën nga jëm de waye mëno ko xex mën nga jëma yaq derwa waaye du sotti parce que nit ñi li ngay wax ak li ñuy gis day dema dem ba yàgg ñu xam ni dëgg yàlla demewul noonu su ko defee ñoom la ñuy gis moo leen di gën a convaincre que yow li nga xam ne moom nga nekk di wax loolu moo tax mbokk yi yoon yi bu ci kenn tiit suñu borom moo ko téel boppam moo ko garantil boppam suñu borom moo koy doxalal boppam fa mu war a àgg dana fa àgg lam war la ca war a sotti dana ca sotti te loola moo xam fekkee nañ ko moo xam fekkewul mais yoon wuy wéy la ba keroog borom bi taxañ asaman di taxañ suuf mbokk yi kon daawa bi bi loolu amee <clears throat> ñu ràññeeku lool daawa salaf yi ràññeeku lool yi jàllale alquran ak sunna teg ko ci dégg ñu mag ñu baax ñi ràññeeku lool ci yittewoo pas-pas bu wér yittewoo jaamu yàlla gu wér waaye yittewoo jikkoy lislaam yi nga xam ne ay qualité la doomu aadama yi di ko dund bu njëkk dañ daan gis nit koo xam ni day jàng diine day ñëw di waaraate waaye day araamal nangam taganal nangam su paree mën nga kaa gis muy tux wala nga gis ko muy carte wala nga gis ko muy dem di njaalam wala di génnee jabaru jaambur wala doomu jaambur waaye daawa salafi bi ñu dafa wan nit ki li ngay wax da nga kaa war a jëfe li ngay woo nit ñi yaa ci war a jiitu booy tere fen bul fen booy tere sàcc bul sàcc booy tere triyaane bul triyaane booy tere naxaate bu naxaate da ngay am pas-pas bu wér am jaamu yàlla yu wér waaye am jikko yu strict jikko yu correct yi l'islam digle nga ne ci lépp ji bépp jikko bu baax l'islam digle nga ne ci bépp jikko bu bon bu lislaam tere nga ko daa dëppale li nga xam ne mooy li ngay jàngale ak njàngalem diine ji ci pratique ci wàcce ko ci sa kaw yow yaa ciy jiitu di ko jëfe yar ci sa bop yar ci sa njaboot bu ku la gis xam ne li ngay dund da nga wax njëkk dañ daan gis ay ustaas ay woote wootekat yoo xam dañuy woote woo di woot nit ñi di leen jàngal ci diine woot seeni sikkim te yonent bi alayhi salaam digle ko kon dafay am contradiction ñu ma la gis kaa koo xam ne sax dana araamal yu bëri ba pare day tux te pourtant waaraatekat la amoon na fi waaye lan moo ko dindi mooy daawa salafiya moom dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg moom moo ko fi jëli moo ko fi dindi moo woon nit ñi ne li ngay woote da koy jëfe nit ñi dañ ko gis mu feeñ ci yow su ko defee nag léegi pour nga convaincre leen su loolu wax dëgg yàlla ak daawa salafiya mooy li nga xam ne moom moo ko kon ci jamono yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ ràññeekoo ñu xam leen léegi nag pour yàq seen daawa ak yàq seen méthode seen manhaj bi nga xam ne ci lim tege mooy jàngale xam-xam tasaare alxuraan ak sunna teg ko ci dégg ñu mag ñu baax ñi woo nit ñi yar leen ci pas-pas bu baax woo nit ñi yar leen ci jaamu yàlla yu set yu wér woo nit ñi yar leen ci xam-xam bu wér muy xam-xam alxuraan ak sunna nit ñi commencé jëm leen a ternir jëm leen attaqué tout bord defar ay nit sax yoo xam ne dañu la nuru ci melokaan ci colin ci jëmm ci waxin ci comportement di def yoo xam ne wax dëgg yàlla dafay wuteeg njàngaleem diine pour yàq seen dar ak ñu ne gaa yi ñi lañ mel liñ wax ci kaw li la waye ci suuf lii lañu def jëm nañ ko fu nekk waaye sottiwul parce que daa bi yalla do wax jéem jël seeni borom xam-xam attaquer len xex len jaboliser len jëm yaq seen image waye taxul mu sotti ko moo tax de kuy xexé mom da ngay sonn daawa salafiya kuy xeexe mom wallahi yaay ñëk a sonn ñu ne ci biir da ngay sonn ba yëk ne da nga sonn di nga wote wala fu nek di nga tok ba yaak nga jaxlé di nga dugg sa néeg jékki-jékki xol sa bop xamne wax deug yalla man mi sonu waxuma de way sonu na deug yalla sonu na parce que nak lii dafa nek lo xamne du luñuy ñuy lok mom di jambar parce que du mbiru Masamba du mbiru Ibnu Taymiya wala mbiru Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, wala mbiru Bukhari det du sen mbir waye mbiru borom bi subhanahu wa taala dina yalla salafiye moy dina yalla jibe kon loolu bu ko nit ki day xam ni daa ab luñuy ragalal te liko ko sax moy di songu ak di xex sa buñ ko songé xex ko ci lay am di mu am yonente bi alayhi salatu wassalam bi mu taxawé di woté may ñu ko jàmm dañ ko déclarer xex may yàlla taxawal da woté kon woté bo xamni bi ko yaronte bi déclarer dañ ko déclarer xex bu ko ko déclarer ñu déclarer la xex ok lu moo tax kisub daawa commencé taxawal ay jàkka commencé commencé taxawal ay site commencé taxawal ay télé commencé taxawal ay rajo loolu bokk ci li nga xam ni wasila la moyen la pour ñoom pour seen li nga xam ni mooy seen mën haj bi ñuy woote mooy woo nit ñi ci pas-pas bu baax jikko yi rafet ak jaamu yàlla yu wér ak xam-xam bu am njëriñ ñu mën leen mën ci mu jaar ci bi wala mu jaar ci télé bi wala mu jaar ci site internet bi wala mu jaar ci page Facebook bi wala mu jaar ci li nga xam ni mooy moyens yi nga xam ne ñoo xew ci jamono léegoo-léeg dañ koy utiliser ci jàngale wala ci xutba wala ci conférence wala ci waaraate wala ci ay débat nga xam ni euh, seeni débat ku ko seetaan nit xam ne débat yu xam yu xam la ñuy wax lu njàngalem alquran mi wér wax waaye ku leen xam it ne xam ne ñoom dañuy daw lu lëndëm lu leer lañ bëgg seen njàngale day leer li ñu woote ci pas-pas lu leer lu ñëpp mën a dégg du ñu woote lu lëndëm loo xam ne kenn mënu koo wala déglu ko du mën a dugg ci bopp wala du logique wala sax day aajowoo ñu expliqué waat la ko ko comprendre yàlla waxoon ne fa amma allazina fi qulubihim zaygun wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa al fitna wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu ta allah ñi seen xol yi feebar ñoom ci alquran ci diine ji dañuy xool li lënt ñuy xool ay lënt rek pour di ko génnee di ko tasaare di ko divulguer ak xamal ko nit waaye ñi nga xam ne seen xam-xam Euh, ñoom euh, set na ñoom dañuy moytu lool loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ni ci xadisa Aïcha iza raaytum allazina yatba'una almutashabihat fahzaruhum walayka allazina samma allah xadis bi ngi ci saxi muslim mu ne bu ngeen gisee ñi topp yu lënt ci diine xam ne lënt rek duñu wax lu leer lu leer laa ngi waaye dañ koy bàyyi di xool yi yu lënt yi lañ lañ ci jublu ibtixa al fitna taal fitna indi fitna ak di ko wëlbati di ko jox maanaagum amul kese ñaar rek mom mo len taxa jox jóg daawa salaf yi nag loolu tax a koo jóg loolu dafa jëm du méthode am du yoon wo xamni mom la jël di ko utiliser parce que so bëggee nit ñi am pass pass bu wër jaamu yalla yi wër am xam-xam bu len di jëriñ lool da ngay utiliser xam-xam bu leer dañu gëm ni ñom diine gi dara la nëmmu ci parce que yantibi alayhi salam Jibril ñëwé laaj ko da ko laaj l'islam laaj ko iman laaj ko ihsan laaj ko mandar gay penc yonent yantibi alayhi salam ne ko ah euh, bés penc mandargaam yi mom nangam la ginnaaw bi ñu ko laajee bés penc kañ la mun a xaw ma waaye mandarga yi moom nangam la ginnaaw bi ko laajee mu tontu seen diine kon xadis boobu dafa résumé diine kon diine dafa leer naañ bu fekkoon dafa am lu ci lëndëm jibril ñëw toog ci kanamu yéen di ko laaj à cœur ouvert mu koy wax danaañ nañ pettu fële nañ parce que mbir du luñu war a dégg a xam waaye waxu kaa ñu dem fële ruq ñu gisee dafa toog fi mu toog moom yonent bi alayhi mbooloo mi mu yox muy dégg mooy lépp luñ mën a taxaw ci kaw minbar di ko fa jàngal di ko fa wax nit ne la diine la du diine diine l'islam lépp lu ci nekk nit mën naa taxaw ci kaw minbar wax loo xam ne lu lënt la moo tax ñoom seen woote du mujj ne am na baatin bu seen mën xaj bokk ci wala loo xam ne lu ñuy war a xam la ñu war a koo xam déedéet dañuy gëm na rek am na loo xam ne ci wàllu niveau ci wàllu mustawa nit ki war na faa àgg ci niveau ñu xamal ko am loo xam nit ki du fa àgg duñ ko ko xamal ba keroog mu fay àgg euh, ci xelam ak ñoram ak matam jor ko ko xamal loolu rek la waaye lu ñuy nëbb mbokk yi loolu am solo lu mata a bàyyi xel loolu moy différencier mën fa ju daaw bi nga xamni euh euh salafu salih dañ ci dox salaf yi yii nekk ci jamono ci dox ci la jitu ci jamono yi bali mu ci jamono yi bu baakha baakha baax a baax mbokk yi boo xoolee addaawa salaf yi ñu yitté wo tasare alquran ci yitté wo tasare sunna ci yitté wo tasare sunna ci geussu la ci wér ak la ci wër wallahi do fek kenn ku jox yitte hadith yonente bi alayhi salatu wassalam jéem ko jàng jéem ko jàngale jéem ko dégg jéem ko tasaare jéem a gëstu la ca wér ak la ca wérul lu toll ni ñi nekk ci yoonu addaawu salaf ku ko gis rek na wax ko gis rek nañu wax ñii doo ko gis mën nga leen tuuma lu nekk waaye loolu lu nit mën a nangu bal ay noon ñoo seede ay noon ñoom ñoo ko seede te nag dañ nee nañ seede bi gën ci seede yi mooy seede noonu seede bi gën a dëkku ci seede yi mooy seede waaye seede xarit ak seede mbokk mën naa jëm nit ki waaye seede noonu nag moom wax dëgg yàlla dañ ko jël en considération parce que kii jubawu leen ba pare te moom nangu na li ngay wax loolu dafa nekk loo xam ne ci ko loolu moo tax ci côté boobu euh, loolu bokk na ci li nga xam ni euh, li leen mën a jamono ji nag ñoom am nañ ay woote ay ay ay ay koy def di ko ñëwee si nga xam ne yàlla yi gën xam salafu saalih ba tasaare alxuraan ak sunna ko ci dégg nga salaf tuñ mos a wàcc loolu parce que loolu mooy li nga xam ne seen daawa ci la ci la reposé wu mooy base bi ci la tege ku ko wàcc génn nga ci yoonu salaf yi ak loo mënti woote woo wootu ñu ci alxuraan ak sunna ak dégg ñu salafu saalih mooy nekk ko ci ak loo mën a woot ak loo mën a jàngal waaye ku ci nekk ci nekk ci lii bu waxul li sax ngi ci daawa salaf yi moom mi ngi ci yoon mooy alkitaab wa sunna ku ci nekk yaa ngi ci yoon moo tax mbir mi du rek lu ñuy réclamé wooyu di ko woote woo waaye ay acte la jëf la jëf yi mooy wane ne yaa ngi ci jëf yi mooy wane ne vraiment yaa ngi topp yoon wi jëf yooyu wane ne yaa ngi koy tasaare jëf mooy wane ne yaa ngi koy défendre jëf yi mooy wane ne yaa ngi nekk ci li nga xam ne mooy yoon wi di ci bay li nga xam ne mooy sawar di ci def li nga xam ne mooy si devoir kon loolu bokk yi bokk na ci li nga xam ne euh, li mat a bàyyi xel la bu baax a baax dama xamul nag euh, waxtu bi lu ci des euh, ñun fii waxtu waa ngi avancé bu baax ala kullin li may wax mooy taxawal nañu ay ay minbar ci wàllu ay juma tey foo dem rawatina ñun réew mi nekk ak réew yëpp tey ahlu sunna am nañ fa ay centre islamique am fa ay markas am fa ay daara <coughs> am fa ay école seeni juma yu bopp di fa jàngale waaye foo dem tey am nañ fa seeni rajo am nañ fa seeni site internet am nañ fa li nga xam ne aussi moom mooy seeni minbar yoo xam ne ay télé la di jéem jàllal li nga xam ne moo seen woote toujours teg ko ci a ak sunna ak waxam salaf di nga xam ni wax dëgg yàlla loolu ñëpp ci waroon a kontaan lu waay bañ bañ bañ yëg xam-xam bi ñuy wax bu leer la dañuy jàll ci xam-xam lu leer la leen waaye bañ bañ xam ne dañuy xeex bidaa kooku seen mën xëj leen waaye bañ bañ xam ni dañuy xeex bokkaale kooku ci seen mën xëj la bidaa bokkaale ak mooy yàlla mooy li ñuy xëy suba ngoon ku dégg bëccëg di ko mooy ci loo doomu aadama parce que ku dee ci bokkaale suñu borom alal la ku a ci bidaa wa kullu dalaal fi naar képp ku ci ay mooy yàlla yalla mën la cee lakk même boo duggee safara bu ke do fa saxit yalla mën la lak lakk ci mooy yàlla li nga def mu tax ñu mo ci doon nit ñett muy bokkaale yalla tab ci ay bida ak nur ci ay mooy yàlla ñu koy moytu loolu li nga xamni mom moy askan wi di ko ci li nga xamni moy mooy xeet wi di ko ci lo li nga xamni ne mooy jullit yi ak ko doomu ci bokki bo boo seen radio parce que dañ leena taxé né dañuy yéfélo nit ñi digital ay bomb ay ñu fitna lañu demal nga déglu seeni rajo nga déglu seeni warate dan nga ci dégg xam-xam bu wér bu set wecc bu alquran ak sunna demal nga setan seeni téré mo fay fekk demal seeni site internet do fekk ay xas do fekk ay saaga do fekk ay yéefeerlu ay nit waye xam-xam bu wér bàyyi ko ci alquran ak sunna yalla nee na yonent bi nee mo ngi bax ni ñi kon kurel go xamni wax deug yalla ci li lay dox ah léegi nak day nek menace ci ño xamni ñom bëggu ñu diine ji leer nay lëndëm rek bëgguñu lu leer day lëndëm rek léegi da ngay nekk menace ñooñu parce que ñoom yow dañ fay nekk lëndëmal bëgg lu lëndëm nit ñi di nekk ci lëndëm pour ñuy gën a mën di lëndëmal nit ñi yow nga ñëw nekk ci lu leer di leeral di woote ci lu leer nit ñi di la fekk ci leer googu ah xam nga boo fekkee ne yow da ngaa bëgg nit ñi nekk ci lëndëm gi yow nga nekk ci leer gi di woo nit ñëw ci leer gi yaa nekk ci lëndëm gi di woo nit ñi ñëw ci lëndëm gi ba moytuwul waaw ah, ba moytuwul mom fokk mu déclarer la guerre wala fokk mu jëm a ci dara wala fokk mu xex la mu jëm ternir sa image lu ma waral coow li nga xam mo am jamono yëpp daal di am du lolu yoon la woo xam wër motax suñu borom day bayyi léeg-léeg ay mbir xew pour nit ñi mëna gissal sét motax ñi doon wax ni ñom buñu amé radio ci ñen taal dëkk parce que ñun luñu wax ci suñu radio yi ñom dañuy tok seen oustad seen radio yi di wedd ji ñun lañ wax buñ ko wéddé suñu nit duñ ko mëna supporter mëna indi xex ban xex mom kay yow boy wax waxal xam-xam bu waxul xam-xam kay ki ñew di wax xam-xam ngay dag ma wéddi waaw weddi moom amu fi wax xam-xam la bu fekkee nag wax xam-xam bi moom nga jàppee weddi nag loolu kenn mënu ci dara am problème xam-xam moom nii dinañ ko wax ngay jooy dinañ ko wax ngay reetaan nii dinañ ko wax nga ne dañ laa weddi du tee nit ñi dinañ wax parce que xam-xam moom kenn moom ko xam-xam xam-xam diinee ko moom xam-xam yàllaa ko wàccee indi ko ba pare daa di yëkkati borom xam-xam yi daa leen di tagg daa leen di daa leen di seedeloo moom borom bi subhanahu wa taala shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist yàlla moo seetlu borom xam moo leen jox daye bi ñu am moo leen jox place bi ñu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne al ulama warasatul anbiya borom xam fa ñooy fi wutu yonent yi te yonent seen mission nga doon leeral diine borom xam dañuy leeral moo tax loo gis génn kilifa bu bokk ci waa ahlu sunna bokk ci addaawa salafi nekk fa kilifa lu dul dina jàngale dina xutba dina waaraate am nay dars am nay fatwa dinay leeral diine muy leer ci bopp nit ñi léegi jëlal yeneen couleur yi couleur yi nga dem fa man nga fek nit mu nek kilifa do ko xamee khutba do ko xamee dars bu muy def do ko xamee jangale gu leer do ko xamee fatwa wala ay laaj ak ton ci mi def yu leer yo xam ne mën gindi bopp nit te ñu ngi leen bayyi may leen jamm ak leen tegu leen dara wa kon kiy jangale diine mu leer kay di ko muy jot ñepp di ci jot ñepp di xam nu ñuy jaamoo yalla nu ñu wara a yalla nu ñu wara jikko ci jikko l'islam fexe xam-xam bu jëriñ bo xam nit ki da ci yok bu nekk di yokk alxuraanam di yokk muy xam li yàlla bëgg ci moom di yokk ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku ñu ne ko yow doo fi dara tekki wa dara nitu fitna nga musiba nga xajawuñu ak yow dañuy fee war a génne wax dëgg yàlla loolu xel ko doonu loo xam ne mën a mbokk yi ci résumé bu gàtt li mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ ko sànni li nga xam ne mooy lu aju ci manhaju daawa salafiya fi daawat ila allah dinaa bi ñu xam ne baat yi benn bu nekk la lay teg manhaj di daawa di asalafiya ak seen daawa ci lan la posé seen manhaj bi nga xamne mi ngi tege ci euh al iman as sadiq wa sahih ak al amalu salih ak li nga xamne mo moo alimu nafi tege ko ci genné lo lépp ci al kitab wa sunna ala fahmi salaf al umma wone yonent bi alayhi salaam daawaam bu ñek fim jaar ak yim doon utiliser ginnaaw gi li fi dox ba ak suñu jamono ak wala ma wa salaf li nga xamne def nañ ko ci feñal al qur'an jox ko yitte ba nit ñi delu ci feñal sunna yonent bi alayhi salaam ak xadisam ba nit ñi delu ci waye yitte wo la ci wér ba nit ñi delu ci ba léegi sax ñëpp xam nañ ni mën haju daawa salafiya taasir na ci milieu yëpp da ngay dégg ku daan wax lu ko neex mu wax ci hadis bu waxee danaan ah wóoruma sax ndax hadis la waaye hadis la de waaye wóoruma sax ndax wér bu njëkk nii daaw ñu ko bàyyi xel loolu ci effet yi am solo ci li nga xam ne lu positif li nga xam ne ak daawa salafiya def bokk na ci nit alquran doo ko jàngee ci ni mu la neexee alquran di nga fexe booy wax di nga jéem a mokkal aay wala nga xam ne nga jëli ku daal di ko hadis dama ko jëlee leneen li it mooy looy waxate ci xam-xam di nga fexe ba prouver ko wañu ne diw moo wax doone rek diw moo ko wax waaye diw moo ko wax moo ko wax ci téere sàng moom loolu ci barke ci barak baraka bi nga xam ne yàlla def na ko ci barke daawa salafi bi mu am ko ci la bokk mbokk yi kon wax dëgg yàlla tuutiwul de tuutiwul def na effet bu baax boo xoolee ci terrain bi ñi doon wax lu leen neex wax ci wàllu conférence ak ci waxtaan ak xutba daawa salafi tax na léegi ñëpp dañuy wax xam-xam ñëpp dañuy jéem a wax xam-xam jéem imiter borom xam-xam yi nga xam ne ñu nekk ci daawa salafiya ni ñuy waxee mu nivolé am xam-xam am ay ressources li ñuy wax ñu mën ko firndeel ci alquran mën ko firndeel ci sunna ñepp xam nañ ni loolu ci ñoom lañ ko xam parce que seen manhaj mooy qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin looy waxal ci diine ñu ko burhan indi ko dalil moo da ngay dégg yeneen côté yi daaw ñu ko jëfandikoo bo waxe ñu la indil dalil léegi lay wax ñu la lan mooy sa dalil ñoom fa lañ ko jëlé du seen manhaj du seen daaw bok ci dé wa dañ koo àbbi ci ak daaw salaf bo la waxati ñu la ndax am nga ci dalil foko tek lan mo ci sa tegtal kon mbokk ñu sant yalla na daaw salaf yi jamono yi bëss bi ngi dox waaye nag aajo woon a gën ci jàpp jàpp ci li ñu am booloo pour mu gën a dox incha allah taala suñu borom danañu defal tawfiq ba li ñu bëgg yéene ko mu àgg fa parce que nag daaw bi euh, mi ngi dox suñu borom moo koy sàmm di ko yóbbale amul sax moyens yi mu war a am waaye nag ñun dañ ci war a joxe suñ participation dañ fiy jóge yeneen génération bu ñëwee ñoo xam ne ñi leen jiitu woon fii ci daawa salafiyya bi ah seen jamono def nañu waroon def xar nañ seen tànk tubéy ba daawa bi wax dëgg yàlla ñoom accès ci ñoom dinañ ko mën a téye ci anam goo xam ko fekk ci anam xam ne seen xol du tàng dina sedd ñu ko téye ci noonu tette ko ñoom it yóbbu ko ba génération yi ñëw seen ginnaaw continué téye ko su ko defee loola ñun suñu borom dina ci bindal tiyaa parce que ñun ñooy addallu alal xayri ka faa'ilihi suñu borom dana ci bindal tiyaa fa mel ni mi ngi guddi te am na ay préparation yu ñu war a def wala heure dugg li ci des ma daful une heure de temps hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخنا يعني الله سبحانه وتعالى سمت وتتار ما شاء الله نابي قاتنا ويا الحمد لله جلنا نان سي بيند يو خامني الله يو ام سولو لا ndax indil nga ñu daawa salafia wane ne saxal bu baax la mooy woote ngir saxal dëgg woote tamit ngir jëmale ci dëgg ngir tamit imaan gu dëggu wér waye tamit te moy lolu moy don jëf ju bax te nga wane ne tamit saxalit ne jëf ju bax moy li nga xam mom la yàlla subhanahu wa taala di jël moy li yegg lépp moy wote tamit jëmale ci alquran ak sunna comme niko borom bi subhanahu wa taala waxe udu ila sabili rak ila sabili rabbika kon moy ta salaf asalafi ñom ñofi nek nak wax deug di wote ngir jëmale ci yàlla akub yonentam ju raxul lenn woote wu ngir intérêt loolu wax nga ko boole ko ak indi ci ay firne yoo xam ne amul ku ko mën a weddi wax dëgg yàlla boole nga ci tamit ci li nga xam ne ni mooy yoo yoon yu bari problème bi mënoon a bu muy indi waaye tamit salafi rek ñoom ñoo nekk ñoo xam ne ni foo dem ñoom diñ lay woo mooy jëm ci yàlla ak yonentam ak yittiwoo gi nga xam ne ni nii yittiwoo nañ ko xamal ko nit ñi li yàlla wax ak li yonent bi wax walis li keneen wax par rapport wuuti ci nag ak ñeneen ñi nga xam ne dañ lay woo jëmale ci kon lool wone nga tamit bu baax na ni ulama yi seen fatigué ak coono indi nga ci lenn ci li nga xam ne ni coono yi nga xam ne ñoom def nañ ko ñoom tamit ngir saxal li nga xam ne ni mooy dëgg indi nga tamit juñu nga fitna yi nga xam ne nii nag ànd na ak woote ci jëmale ci yoonu yàlla subhanahu wa taala waaye ak yàqu-yàqu bi nga xam ne ni tey am na ci jikko yi am ci culture yi sax mën nañoo wala sax ci aada yi moo xam colaay yeeg yëpp ba nga xam ne tey mun nañuy gis benn jigéen bu solo sol bu doy waar te fekk benn góor sol sax lu gën la jigéen ji sol waaye duñ këri si jigéen ja waaye góor gi la ñuy jàpp ne nii moom moo fedd géew te di ko waral mooy donte soxna sa lam sol xëy na lu gàtt la lu doy waar la loolu nit indi nga tamit wane ne nii woote boobu nag dana jànkuwante ak ay fitna noonu danañ jóg jéem ko contre waaye la yàgg-yàgg rek ñoom seen mbir lu daif lay doon muy lu néew doole toujours rek dañuy faral di échec ci kanam waa dëgg te mooy salafi war war nga tamit ne wane nga bu baax ne ni salafi li leen tax a jóg saa su nekk mooy di leeral dëgg ak jox yàlla subhaanahu wa taala gëddëm jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëddëm ci jeexal gi nga wane ne jox yonent bi gëddëm mooy yittewoo li mu wax ndax nga xam ne wér na ne moo wax ñu fësal ko nit ñi ne lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki ko wax waaye li nga xam ne nii wala dañ ko waxal loolu tamit nit ki fexe ba gëstu ba xam ne nii kat dañ ko askan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye waxu loolu tey alhamdulilah yii ñu wax ni yëpp muy ay yu baax ñoo ngi ciy junj ñëpp benn laaj du ma njëkk laaj sama laaj bu njëkk mooy ndax wootekat bi bu gisee benn ñaawteef daa war a xaar wala rek mu tëdd rek di nelaw sax ba ñu ne ko fee am na aw ñaawteef mu ne waaw am na aw ñaawteef d'accord waaw waxuñ pour ma wax ko xaar bañ wax ko ne ko saw yow kat ñun suñ ñaawteef yi kaay nga waxal ñu ci mu soog a dem wax wala moom dafa war a dem di xool ci bi di ci dund comme ñoom bu ci gisee aw ñaawteef mu dem taxaw ne lii nii aw ñaawteef la dafay war a jógee ko taxaw dénoncé ko wala boog daal comme ni ko gars yi di waxee de gëmal li nga gëm rek bàyyi ma man ak li ma gëm waaye bañ a dugg ci ngëmu keneen ndax loolu salaf yi salaf yi ndax loolu moo doon teeru doxalin barakallahu fikum fikum barakallahu xeer alhamdulilah ñu ngi delluwaat di nuyu mbokk yi nuyu mbokk ci groupe yëpp ñaan borom mu defal ñu tawfiq te defal leen waaw xam nga suñu borom dafa wax ci surat ali imran ci verset aya aya 104 أنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون na am ci yéen ñoo xam ne ya'muruna bil ma'ruf dañuy digle lu baax waaye lu ko jiitu umatun yad'una ila al xayr am ci yéen ñoo xam dañuy woote ci lu baax al xayr boobu borom xam ne mooy ad-da'wa ila al islam dañuy woote ci l'islam ya'muruna bil ma'ruf ñuy digle lu baax yéen xam nga al munkar ñu tere lu baax ulaikum muflihun ñoo ñooy ñi texe kon il faut am fi kuréel guy woote ci lislaam di woo nit ci lu baax di leen lu baax di terlu loolu kon dafa dafa am lu moo tax a daawa salafi dafa bokk ci i ihtimaamaatam mooy lépp loo xam ne munkar la lu bon la ñoom dañ koy tere ñi def ko dañ koy tere nit defu ko it dañ koy tere par exemple ñoom duñ xaar ba nit bokkaale ñu ne bàyyi leen bokkaale waaye fu ñu nekk dañuy leeral mooy ci leen bokkaale duñ xaar ba nit def bidaa ñu ne bàyyi leen bidaa fu nekk ñu ngi jàngale da mooy ci leen bidaa yi ay bidaa la ñu ngi su ko ki defee ñu continuer aussi di ko leeral duñ ci topp du te ñu jiitu fekkoon nañu leeral leeral ko bàyyiloo ci xel nit ñi moo tax sëyi aat euh, yu bon yi munkaraat yi kooku ki da koy leeral saa su nekk parce que diine koo leeral su amee ku ko def it du ci noppi mu leeral ko ne li nga def njuumte la munkar lii wane ne njuumte la mi ngi nii yàlla da koo tere fii la ko tere yonent bi alayhi salaam da la ko tere salaf yi fii lañ ko ŋàññee mi ngi nii teg ba su ko defee su boobaa kooka jaram lay wàcc mu mënul lu dul jottali nit dana jëf wala du jëfe loolu nag leneen la wama ala rasuli illa al balaax yonent bi yeneen yàlla sant ko ñun mu daal di jottali lasta alayhim bi musaytir santuma la nga forcé leen kon noonu rek la koy doxalee wallahu taala a'lam kanta nag wax ji gëma li nga gëm ma gëm li ma gëm li nga gëm bu fekkee ne baaxul suñu diine dafa wax ne baaxul yàlla dafa wax ne baaxul ñun waxuñu ko yàlla ko wax dañ lay jottali ne yàlla nee na li nga gëm baaxul loolu rek la tey jazakallahu xayran islam islam TV tey whatsapp nekk na fi Facebook ne fi ak yeneen islam TV luy hëdëfam moom léegi ci domaine bi beneen bi mooy waaw kay laaj bi loolu la. waaw alhamdulilah mbokk yi taxawal nañ ay médias yu bari senegal ay rajo jéem nañ ci ay site wallahi mu liggéey ci site yooyu ñu taxawal ci ci ci ci ci daawa bi muy xam sa diine euh, ak yeneen si yi fi jaar di dégg yeneen yeneen blog yi fi jaaroon. muy Tayssir Blog wala l'islam point net ba fi newoon wallahi ak moyens yu ndaw yi ci mbok yi def wallahi li mu jindi ci ay nit ci sunna mu dugal ci ay nit ci daawa ci biir Sénégal ak ci bitim réew kenn mënu laa wax nu toll muy wane ne sunu borom moo ci def parti ay nit am na lu ko ëpp ci ay moyens pour sànq ay nit réeral leen te te amuñu amuñu ñu réeral wala lañ sànq wala lañ alors que daaw bi ci moyens yu ndaw yooyu def na lu rëy ñu sukkandiku ci ba léegi gis ne war war nañoo romb ay rajo war nañoo romb ay blog dem ba jéem ay mbokku jéem taxawal loo xam ni ab studio la télé boo xam ni am na bërëb équipé ko lépp mu ne fa mooy Islam TV nga xam ni euh, bañ ko defee janvier 2019 la commencé daw commencé émettre ba ñu ngi ci janvier 2020 mooy loo xam ne teg na at ba ak ci bu mu amee mu teg at ak juróom daa wasal nga loolu ñoo ko nekk moo xam ci tafsir la moo xam ci hadis la moo xam ci fiq moo xam ci tawxid la moo xam ci yeneen domaine yi la ñu fa nekk loolu la jàngale jàngale wuñ leneen lu dul allah qaala rasul ci lañ nekk te as tuuti moyen yi mu am mi ngi mi ngi def ay effet yu am solo mi ngi am ay njëriñ yu am solo mi ngi jàll ay résultat yu am solo ci li nga xam ne ci la commencé di liggéey mu nekk nag télé boo xam ne ci internet bi lay daw ci site bi emedia euh, point sn wala ci youtube bi wala ci li nga xam ne mooy page facebook waaye naka noonee dem nañ ba mujj am euh, dugg ci li nga xam ne mooy réseau câble yi euh, ci utiliser li nga xam ne mooy IP box muy émettre ñu dugg ci réseau câble yi nga xam ne mooy bu parcelle bu Pikine léegi yu bëri dooleeku na ci ba mbaaw mi ngi mi ngi tàkk waaye yu bëri mi ngi ciy dooleeku incha allahu taala tey jii mariste dem li nga xam ne mooy Mermoz dem Wakaam dem li nga xam ne mooy yof ñëw Ouest Foire Nord Foire Sicap Foire Grand Yoff Patte d'Oie incha allah taala tey jii may wax ak yéen ñu ngi ci liggéey boobu pour ñu dugg ci réseau boobu noonu su defee day nekkoon daanaka dinañ xaw a matal li nga xam ne mooy Dakar bi iznillahi taala mu nekk nag télé boo xam ne mi ngi jóg mi ngi daanu parce que wax dëgg yàlla amul fenn fu mu source wala xaalis bu mu am bu fi tegee waaye day dóor di dàqan di dóor dàqante la ñuy def weer bu dee ñu jéem a fay facture courant ya facture internet yi fay ndox mi fay location bi fay technicien yi nga xamne ñom lañ jël ak ya fa nek nga xam ne dañu di do wër bu dé ñu dajal la am jox leen légo lék bu mat ñu la jox leen légo lék du mat man ma lijeenti wala yeen mbokk lijeenti ñu am luñ tek seen loxo ñom bi ñu nek ño xamne comprendre nañ liggéey bi lool mu jaral leen wax deug yalla ño xamne daaw fi sabilillah la waye nak bu fekke da nga bayyi sa kër wax deug yalla ñew di tok ci ab télé di fa def sa temps té di film di caméra di dugal ay son ci dagg di enregistré ila axirihi ba pare euh, am looy xaar mënoo ko li ñuy ragal rek mooy lu daloon média yu bari bu yàggee nga bàyyi ko fa dem ci leneen dem ci yeneen média yi moom sama ngaa dem ci média boo xam ne média am waaye fekk ñàkk pexe moo la fa yóbbee kon lu woo jàppale la wax dëgg yàlla jàpp naa ne mbokk yi buñ ci jàppee ñi ci war a jàppee taxaw lu bari lu doon coow fii ci dëkk bi dina taxaw léegoo léeg mbokk yi woo ne la ndax doo seetaan télé télé sàngam am na ñu fay def débat nangam ñu ngi attaqué nangam est ce que duñ doo jéem a woote invité la boo ko wooyee du tax ñu invité la wax dëgg yàlla kon ñoom dañoo am seen objectif mais bu amee sa télé bu taxaw bu carrément bu taxaw mel na mu war a mel yow ñu lay invité waaye lu mu wax ci ay lënd sa plateau ngay toog ñëpp di la seetaan ci réew mi comme nañ seetaane woon télé booba nga tontu loola leeral ko di gën ci ni ñi daal di gindeeku walillahi alhamdu Ousmane salaamaaleykum salaamaaleykum. waaw seen difficulté ci wàllu finance depuis ngeen judd ba léegi télé bi ba léegi dafa mel ni euh, dañugul te ba léegi toujours day gën di métti ndax man yëg naa ne weer yu ñu génn yow mi yow yëkkati nga sa xaalis yow fay ñenn ca ña fay liggéeyee xëy na loolu waroon na ma def ko ak keneen ndax am nga benn message booy jox ñi nga xam ne ni ñoo ngi dund sunna waaye tamit yàlla subhaanahu wa taala jox leen wërsëg dara ñu mën a jàppale tamit télé bi ñëw jàppale leen ci liggéey bii nii ngeen di def xam ne man bima yegge yëgee wax deug yàlla tousi dama lol xeyna xëy yor ma dara wala sax ak nay amaana seytaane bakkar wante surtout yenn bawal bawal yi ñu jàpp ci ci walu finance bobu ndax am nga message bo len di lancer inshallah ma alhamdullilah dañuy wax ne de bokku na ci li nga xamne dañ koy tuddé sadaqa jaar yi moy jël sa alal def ko ci média bo xamne day jàngale alcorane ak sunna borom xam bam bu fa jàngale lépp lu mu fa jàngale nit ko ci jube ko dal dem jëfe ko ñu bind la tuyaaba wu toll ne borom xam-xam ba am mbokk yi loolu lu reey la man ngay dund di am tuyaaba bi man nga dem ba faatu ba yi fekk la sa man nga dem ba tuyaaba yi ag fo xamni ni ña jëriñu ca tele ba ko ci xam ci sunna di ci jëfe ka dawul wor di wor ka dawul japp di japp ka dawul julli di julli ka dawul jang alcorane diko def ka dawul zikr diko def ka ñoo leeral ci pas bu bon mu déglu télé bi ba pas-pasam leer ci nañ am yum boo xam ne lëndoon na ci moom mu bàyyi ko su ko defee loola nekk tuyaaba yu rëy lépp yow nga ciy am tuyaaba te yaa nga toog fa nga toog dërëm boo jël def mbokk yi bu ngeen xoolee yeneen kuréel yi fi nekk yëpp ay kuréel yu taxaw la mu jaral leen seen ngëm-ngëm seen pas-pas fañ bokk di fa askanom ñu daal di laxasaayu daal di koy euh, mu jaral leen laxasaayu taxawal lañ taxawal ñoom ba taxaw am na fi ay kuréel yoo xam ne ahlu sunna ñu ëpp wuuf ci kisaakoo moo ci sax nag wax ñoom ñu kër kër yi ba taxawal ay mbir yor ko muy dox normal amuñ ci benn jafe-jafe waaw luñ soxla lépp mën cee am te ñoom ñu ñu leen ëpp waaye xëy na ñoom ñoo ñu gën a organiser ne ñu nit amaana buñ defoon organisation bu ndaw bu mel noonu suñu borom mën nañoo defal tawfiq ci mbokk yi gën ustaas bi moom te njëriñal daawa bi te daawa bi da ko soxla luñ yàgg mébét la ñëpp di ko wax am kon yàlla defal tawfiq ñu liggéey ci suuf boole wuñ ci wax ju bëri kër kër kër yi ba taxawal kon loola ku nekk dañ ci war a dugal sa dërëm kenn bañ a xeeb waaye ku nekk jaarale information bi bañ a yem ci yow information bi jàlle keneen yëg mu leer ci bopp ñëpp amaana kenn ku nekk bu jëlee as tuutam def ci suñu borom def ci barke loola liñ bëgg mën nañ am balaa at mee jeex ñuy jeexal 2020 mën nañu seetaan ci satellite bi ñu seetaan ci réseau yëpp di ñu seetaan ci TNT bi ñu seetaan ci réseau câble yi ñu am émetteur suñu émetteur bopp indépendant comme télé yëpp lépp lu waay di def ci télé bi def léegi dootuñu am benn problème suñu borom xam-xam la ñuy woo ñooy débattre ñooy def ay thèmes ñooy def émission ci suñuy plateau lañu koy defee suñu xool di seen kenn dootu mën am nañ ñu tontu am nañ ko ñu jàngale am nañ ko ñu jàllale suñu message pour dinañu noppal ci lu bëri bëri kon ñu ngi woo mbokk yëpp ñu jàpp ci baax a baax télé bi Islam TV dugal ci seen loxo yëpp ne moom daawa bi la te lu am avantage la te nag occasion bi bu ñu rëccee ñun ba télé mënul taxaw ni mu war a taxawee mooy bu yeboo wàllu média ñu teg ko ci suuf bañ ko yëkkatee ca xam ne ñun kon échec nañ te ñu ngi ñaan yàlla kon bañ a échec yàlla ñu yàlla sàmm defal aywa macha allah macha allah oustaz jazakallahu xayran mbokk Italie ñoo ngi lay sant di la gërëm waaye mbokki Espagne mbokki Europe ñun ñëpp ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm yàgg nañu jëriñu ci yow lu yàgg lool ay at yu bari wax deug yalla rot ci yow xam-xam bari yalla yalla subhanahu wa taala yok sàmm leen aar leen yéen ñëpp wattu leen wattu daawa bi wattu ñu gëreem ñu gëreem suñu jëf euh legi xamna mbokk yi su fekke amna kenn sama sa Samba Sarr yëkkati woon loxo bu yàgg Samba Sarr ah sama sa yëkkati na loxo waa d'accord waaw après ne mën dugg léegi kon ma bàyyi suñu oustaz boobu euh, di sama sa mu laaj ab laajam su ko defé man bu mujju bi ci coronavirus bi la bëggoon wax inshallah barakallahu fikum mu tëjee waaw si euh, la salaamaaleykum wa rahmatulah waaye ma ne dog jot ma ne di fàttali ne caameen yi ne dog jot na de xaw ma nag ba xam <laughs> allah. waaw yaakaar naa allah. waaw incha allah. salaamaaleykum yaa oustaz ñu ngi bu baax di di kontaan kon ni ko euh, mbokk si sëñ waxe léegi rek bëgg nañ la te yàlla tax aussi incha allah. waaye xam naa li fi ngay daaneel rek naan jàngale alxuraan ak sunna bu leer moom xëy dadul feesal poos moo tax xëy na du gaaw a gars yi duñ ko gaaw a nangooy noonu di ci def seen kéemtalaay kàttan pour di ko jéem a suul waaye mënuñu ci dara allah waaye fi may ñëwee rek ci li ngay wax naan booloo fi ngay waxee naan booloo tey jii ñu wax ne alxuraan macha allah li ñu doon tey jii ñi nga xam ne ñuy dund sunna tey jii bu ñu waxee Sénégal ak Europe gi mën nañ ne romb nañ million wala mu ëpp nañ million jàpp naa ne waaye tey jii li nga xam ne mooy booloo am benn amir boo xam ne tey jii mën di xàccandoo dóorandoo nga xam ne tey jii bu waxee bu ñu taxaw la ne tey tey jii million personne rek ku nekk mille francs un milliard la donc kon réglé woon na problème yu bari yu jëm ci télé boobu lan moo ñu ci ban difficulté lañ ci am ba mënut a nekk fi mu toll ni ak fi ñu toll ni ci étape nga xam ne ëpp nañ quarante ans daxwa boo xam ni mi ngi leer Sénégal di fa dem lan moo ñu ko tere incha waaw xam nga daaw bi dafa am ay sensibilité yu ci am mhm. beneen bi it mooy seytaane day liggéey day liggéey wàllam pour pour toujours gàllankoor daaw léegoo léeg nit dafay nekk moom yor projet boppam di ko doxal projet boppam bu projet personnel la mais projet bi nga xam ne mooy bi ñëpp bokk projet communo bi loolu ñëpp ñëwoon soobu ci jàpp ci euh, fexe mu dox mu ëppoon njëriñ mais léeg-léeg seytaane mooy ñëw yàq xelu nit wala mu def ci xelam ne lee daal mi ngi dox amul benn problème euh, mën ngaa continuer nekk sa mbir dox beneen bi obstacle bi mooy li nga wax mooy yeneen kuréel yëpp dañoo am kenn ku ñu dégg moo xam kili nga fa kilifa nga ca yoon woo wala doo fa kilifa kilifa nga ca kuréel googu wala doo fa kilifa ñëppay bokk jëfal mais ñun problème bi am ci ahlu sunna kenn ku nekk aussi da ngaa xaw ba bëgg a nekk kilifa bu yàlla mayee tuuti nga am baat rek dañuy bëgg a nekk kilifa de day commencé beru ba nekk kilifa ba nga am sa groupe bopp ila axir yi alors que loolu wax yàlla fitna lay dañ doon daw dañ doon daw di am di beru wala di am sa mbooloo wala di am déedéet da ngay nekk ci mbooloo mi ahlu sunna benn mbooloo lañ benn mbooloo lañ leneen amuñu waaye léegoo léeg sax nit ñi nekk ci yow euh, ba lu baax ñoo lay wax wala ñoo lay pousse wala ñoo lay encouragé su ko defee loolu lépp dafay indi ak ak kenn ku nekk jël yoonam donte ñu ngi ci benn terrain bi mais kenn ku nekk da nga am sa projet wu bopp da nga am sa yëfu bopp léegi yëfu bopp yow suñu ko bayé ke bokk yëfu ñëpp bi mu li ñëpp bokk nga xam ni yëg na ñëpp ko bokk parce que gisaguma ne musuma yëg ne ahlu sunna kenn wote dem nañ dem ba ag ci niveau taxawal télé ci niveau bi bam ag ci place bi yaakaar naa mosul am ni doora loolu occasion bu reey reey la bo xam kon ñëpp ci war a jàpp léegi commencement bu nekk mo yombul japp naan inshallah dinañ ko mësa ag parce que yoon yi fi nekk yëpp aussi wala kuréel yi ñoom xëy yu xëy rek agsi bi ñu agsi dañoo jaar bu yàgg yàgg door fa agsi ñu ne incha allahu taala euh, xëy na dañoo nekk ci tàmbali waaye dinañ mas a àgg foo xam ni benn kàddu dinañ mas a boole te jàpp naa ne suñu borom dinañu ko yombalal te nag am nañ opportunité yëpp parce que ñu amee ay borom xam-xam yu mag ñëpp nangu seen xam-xam ci biir réew mi bi ci réew mi ñëpp xam seen place ñëpp kenn sikki sàkkuwul seen xam-xam kenn sikki sàkkuwul suufe seen jikkoy rafet loola war nañoo yombalal dagg yàlla euh, ñu tënku ca gannaaw ñooñu jox leen kàddu bu ñu waxee ñu du sax jox leen suñu bopp waaye suñu kàddu lañ di jox muy kàddu daawa bi boole ko di leen laay biir ànd ak ñoom di leen jàppale di leen orienté mbir yi mën a dox waaye nag dafa yomb teere bi ñu nekk moo yomb réew bi ñu nekk aussi am ay réalité compliqué lool muy Sénégal Sénégal bokkut ak Guinée bokkut ak Mali bokkut ak Gambie bokkut ak Côte d'Ivoire bokkut ak Italie bokkut ak France bokkut ak Màkka bokkut ak benn dëkk bu spécial moo tax mbir yomb mais nag suñu borom dana def tawfiq nañ ci boolee jëf tey boole di ñaan rek incha allahu taala tey sabab bi bés dana ñëw yàlla. Ah, euh, li ñu def lu may gërëm Ousmane yaakaar naa. Ousmane Fayram. waaw. <laughs> ok dafa mel ni quoi man ma naa la ñu doon bàyyi. Oustaz coronavirus bi ak daaw bi. jàkk yi tëj corona bi daaw bi démb ko waxee fay ci côté Saloum benn kii bi Eh, non loolu am na solo mais buñ ci duggee dañuy yël wax ci heure bàyyi wàllu yoon. waaw ah, nañu bàyyi boobu ah, damay ñaan ngant ba beneen jotaay incha allahu taala. incha allahu taala. jazakallahu xayr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.